chers amis internautes Fer TV nous ngi leen di nuyu bu baax di deuxième numéro émission euh, agripreneur alors aujourd'hui nous am avec lool Taïd d'alalfi Ben euh, benn agriculture euh, fi ci Sénégal mu nekk un des pionniers de l'agriculture sénégalaise fille du ci Sénégal ñu fekk si ko ci direction am mu le directeur docteur Macoumba Diouf le directeur de l'horticulture docteur ñu ngi lay nuyu di la dalal c'est un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui comme invité le deuxième numéro émission Agripreneur. merci beaucoup Soxna Khadi. Je suis lay euh, nuyu. la euh, visite bi ngeen ñu defal fi ci direction horticulture ak décision bi ngeen jël ci invité deuxième numéro pour Agripreneur. Euh, nga xam ne Fer TV moo koy euh, doxal euh, ñu leen di félicité ci liggéey bi ngeen di def ku xamul Fer TV dégg nga ko wala gis nga ko ndax ci toile bi liggéey bi ngeen di def ba ngeen door rek léegi ñi affaire u mbéy ak affaire u économie soxal yëpp ñu ngi koy rafetlu donc ginnaaw bu ñu leen félicité

Euh, man ma tuddee ko mbéyum waxtu ne ndax dëgg-dëgg mbéyum jamono ji ne la euh, mu ngi ŋànk loolu ñuy wax culture maraîchère mooy mbéyum lëjum yi moo ngi ngànk culture fruitière mooy mbéyum fruit moo ngi ŋànk floriculture mooy mbéyum gàncax yu taar yooyu nga xam ne taaral bërëb moo tax mu jóg ak li ñuy wax plante ornementale ñeent yooyu mooy horticulture waaye da ngay jot a seetlu ne ñett yi ñoo gën a siiw mooy lëjum fruit ak fleur may wax ni nag diggante 2012 ak léegi jéego yi euh, non seulement mësu fi am waaye bëri na ci ñi yëngu ci affaire culture ñu yaakaarul woon ne ci diir bu gàttee noonu des na ci mën a def jéego yu sore noonu euh, yow laa ci jël ak sa naataango yi yéen presse yéen la ciy jël seede Faut ma en 2012 Donne ngeen intéressé woo nii ci secteur horticulture en tout cas c'est l'homme lool. dëgg la pas yi passé sax mais directeur c'est quoi l'horticulture? C'est hmm. un mbokk yi ñoo ko doon laaj. Hmm. loolu bu dee dit. en 2020 kon la ko jiitu miin woon et pourtant Il bi horticulture am nakajek daf ko am que faut ko Il faut aller. exactement mais si tu as environnement d'abord gis vision Si tu ko une accompagner ko ak ay xalat ak i ak am am potentiel ci vois, manam doole bu ko loolu le président xam bi mu defee plan Sénégal émergent mu ne nañ ko taxawalal programme boobu ñuy wax PRACAS PRACAS mooy programme bi jëmmal mbéy ci biir PSE pour mu wane xaat ni horticulture dafa am solo objectif yi ñu doon wut maanaam natt yi ñu defoon maanaam joxoñ bi ñu defoon fi ñu bëggoon a yegg ci mbéy mi daf ko xaaj ñaar mu jël gerte ak ceeb ne pour mbéyum nawet ne nañ leen jiital ci dooleel bi ñuy dooleel mbéyu nawet mu ne waaye jëlee ma soble ak fruits et légumes de contre saison yi nga xam dañ koy exporté ñoom it ngeen dooleel ma leen kon xam nga 50 pour cent 50 pour cent la. Hmm. mais loolu mosul woon am avant président euh, Macky Sall loolu mosul am. yemu ci mu def ci ay moyens en termes de subvention ci gunge béykat yu ndaw yi béykatu dër yi ci ji ci engrais ci jiwu pomme de terre ci réguler marché bi ci tàggat yi. ci matériel agricole ba nga xam ne dañoo ci di jëggaani pomme de terre at mu ne 2012 ñëw léegi ci juróom-ñett ba juróom-ñeenti weer yoo nga xam ne pomme de terre Sénégal la ñuy dundee te bu dencukaay amoon sax ben doomu pomme de terre waratul fi nek ni waratul jóge bitim réew parce que pa weesu nañu suñu soxla booy def cent quarante à cent cinquante mille tonnes par at sa soxla ne quatre tonnes kay nga li nga soxla soble naka noonu boo soxlaa trois cent mille tonnes ngay def quatre cent mille tonnes ba quatre cent mais xanaa romb nga sa soxla ci wàllu soble mais dencukaay yi xëy na daañu ci ñëwaat. moo desandi woon. moo tax jéego yi ñuy def ci actuellement ci programme national de relance de l'horticulture bi nga xam ne ñetti at yi di ñëw. mooy mooy naal bi ñu ngi ko gën a jëmale ci moderniser mbay mi ci développer pêche euh, agriculture. transition agroécologique mooy mbay mu amul tooke ci développer ay dencukaay ci ful li ñu doon jaay bitim kon xam nga wax naa la ci ñaar yooyu soble ak pomme de mais yeneen xeetu mbay yëpp ci la bokk moo tax ñu jógee ci neuf cent cinq mille tonnes daanaka juróom-ñeenti téeméeri junni tonnes yu teg juróomi junni daaw ñu yegg ci million ba six cent vingt quatre mille un million six cent vingt quatre mille di tey ñu ful ko ñaar. daanaka bariwul xam nga loolu liggéey bu am solo moo ko indi. parce que dégg naa ñu ngi ñu ngi bay fraise sax ci suñu réew. mais ñu ngi bay fraise eh, daa ci ñëw léegi exportation yi fraise war na cee mën a bokk. Mhm. yaatoogu ci gaa moom fraise mais fukki xeetu mbay ba fukk ak ñeent ñu ngi ci ñu leen di jaay bitim réew yi ci gën a siiw mooy mango mooy bopp ba mooy melon mooy ca tegu mooy pastèque moo ca tegu mooy euh, haricot mooy courge.

47 mille tonnes bëgg nañ ko yokk ci exportation bi xam nga kon soxna Xadi gis nga ni kon mbéy mi jóge na fu sori mbéyum ñëw fu sori ci wàllu néewaayu doole dem fu sori ci ay jéego moo xam ci mbéy dunde mooy mbéy pour marché sénégalais bi moo xam mbéy pour jaay bitim réew exporté waaye bi ci gën a am solo mooy tey am na lu xew mooy xëyu ndaw ñi moo xew. ci laa wala boog gën naa xew bu xewoon it gën naa xew boobu. dëgg parce que mooy suñu deuxième question tudd nga fi léegi euh, son excellence monsieur le président de la république wax tamit euh, doole bi horticulture fu mu toll ni ni et puis euh, ku topp actualité tamit xam nga ne l'emploi des jeunes dafa dafa posé wu dafa imposé wu donc horticulture lan la mën indi ci saafara emploi des jeunes et que yéen ci seen direction bi est-ce que tëgg ngeen ay programme yoo xamante ni mën na gunge ndaw ñi ak ñu soobu ci bile métier jërëjëf soxna Khady laaj bu am solo euh, def naa suivre nga comme man ak sénégalais yépp daje président de république doon def bu yàggul ak ndaw Sénégal. fii ci Diamniadio ci Sicap alors fukki délégation yi ak ñeent yi ma dégg yépp man amu ci benn bu waxul ni mbay. ci projet prioritaire maanaam ci projet yi leen gën a soxal ci la bokk ba ci ndakaaru gi loolu lan la tekki li mu tekki mooy buntu saafara xëyu ndaw Sénégal la ca ëpp mm-hmm. ci mbéy lay jóge pour mu am maanaam mënul jóge feneen. feneen waxuma ne feneen amul xëy waxuma loolu dama ne. bu doon téeméer lañ war a saafara. ci xëyu ndaw Sénégal. néew néew néew juróom-ñaar fukki ci xëy yooyu. ci sama gis-gis. wala sax juróom-ñett fukki yi quatre-vingt pour cent yi. ci agriculture lay jóge li mu tuddee chaîne de valeur chaîne de valeur mooy lan. moy buñ ñu rek buñu gis tol bi rek gàncax bi déedéet mbey dafa bëri ay métiers yu mu lëkkalool. les métiers de l'agro. exactement les activités connexes. Mm-hmm. moo tax ñuy wax chaîne de valeur ndax pour nga béy il faut nga am jiw. Mm-hmm. mais kon fournisseur d'intrants rek manam jaay jiw ak engrais métier la waaye ci agriculture la il faut un matériel système d'irrigation pour goutte à goutte tracteur motoculteur planteuse machine l'eau fourniture matériel agricole mais ci métier le, mais ci mbéy ba léegi de mhm. tool kay béy tool métier production bi bien mi boo ci

ma jàpp ne bu ñu nee mbéy it ci wàllu métier horticulture moo tax du pour xëccal waa horticulture déedéet mais ban mbéy moo fi am rendement benn hectare nga mën fi def ñaar fukki junni tonne euh, safula ñaar fukki ton ak juróom ba fanweeri tonne ci benn hectare. ci campagne bu gàtt diir bu gàtt. ci ñetti weer. Mhm. ban mbéy nga ma mën a limal ci Sénégal wala daanaka sax ci àdduna bu am rendement yu magee noonu te bokkul ci horticulture am gerte mënu ko pour nga am ton problème coow la. Hmm. ci benn hectare suuna noonu basi noonu mboq noonu sésame noonu ñebbe noonu foño noonu ceeb noonu kon jeexal nga. bu dee mbéyu nawet. amul ben bo nga xamné pour nga am ci tonne du jafé exception yi touti ceeb ak maïs. ak yuni mel peut-être sorgho mais yenen yépp mënoo ci passé tonne waaw yemu fa dé kon productivité ci mbéyu horticulture yi fa la ëppé manam li ngay am ci ben hectare muy ben. ñaar njëg li kilo la jum il ko que je gën a seer. kilo gerte xanaa daaw ak ren bi gerte je ay deux cent Vous avez chinois yi waaye Je nag chinois de waaye ñu ngi ci deux cent vingt ñu sénégalais est koy lekk. waaw ki la rendement nga def tonne wala kilo bi mu gën la njëg kooku du la ëpp koppar. jeexul horticulture mu nga def néew néew ñaari campagne néew néew laa wax ci at mi. Mhm. parce que mën nga def ñett. te am na spéculation xam ne ay trente ay quarante cinq jours la. yow mi expert nga. Mhm. xaayaan ku dégg. séeréer donc euh, loolu tax soxla nañ ñu mel ni yow. ak équipe bu am solo bii nga àndal. waaw sama jàmbaar yi pour euh, siiwal. <laughs> dëgg la li seen nawla yi parce que ay jeunes ngeen. Mhm. Mm, di di di di soppi environnement Sénégal ci wàllu agriculture. Mhm. ndax seen xarala yu yéeme yi. donc junj ma ko léegi soxna mhm. kon je am na ay cycle court. kon su ma ñaari récolte mën nga ko am. kon xam nga néew na ñu koy wax ci tubaab intensité culturelle. macha waaw ki nga xam ne mën na bay ñaari yoon bu tuutee ba tuuti wala ñetti yoon wala ñeenti yoon wala mu bay ñetti yoon benn xeetu mbéy béy ñaari yoon wala ñetti yoon beneen xeetu mbéy parce que boo demee salade laitue. Mm-hmm. ay 45 jours. navet. navet. Mm. ñaata yoon ñaata 45 jours ñaata ñeent fukki fan ak juróom moo am ci at mi. dëgg la ñaata 45 jours nga am ci cinq jours. bari na kon heure def soble di def pomme de terre di def carotte mu war a def 3 mois mën ñaata yoon nga ci mën a def récolte salade bari na ñaata yoon nga ci mën a récolter naana bari na ñaata yoon nga ci mën a récolter euh, lu ci mel ni betterave ak yu ni mel bari na kon ci gàttal soxna Xadi rendement yi fa la ëppee njëg ñu koy wax compétitivité ci tubaab fa la ëppee intensité culturelle maanaam li mu yoon yi nga mën a bay ci at mi fala ëpp ëppee yemu ci comme yooyu ñoo ëpp benn hectare juróomi nit ba juróom benn nit mën nañ koo bokk te bu ñu ñorlee bu ñu jaayee ku nekk gis boppam. macha bu dee gerte man saalum saalum laa xëy na de mbëri di wax ne xaalisu làmb lañ ma ngénte xam naa mën a wax ne xaalisu gerte <laughs> lañu ma ngénte mm-hmm. kon xam naa ci tuuti. dëgg la. gisuma koo nga xam ne boo jaayee xanaa depuis président Macky Sall. Mm. ngay jaay tonu hectare gerte tonu gerte ñeneen nga jën ñaar wala ñetti tonu ciment loolu yàggul a xew de. Mm-hmm. Ah waaw loolu depuis trois quatre ans la. du dëgg mm. ndax. mu ngi fekk prix ci 165 175 L'église la dem 250 fixé. d'accord 300 c'est du prix plancher bi chinois yi ñoo mais 250 bu prix bu ñu homologué ci président Macky Sall la amee. donc kon je vais expliquer ni. il y a beaucoup sans compter le fait que aspect nutritionnel yi. Mhm. xam nga ñam aussi ñam dafa am ñam am. légumes ak fruits ferñeent yi nga xam ne moo ndarket képp yaram muy vitamine ak éléments minéraux ci xeetu ñoom yooyu la nekk. boo ko seetloo xale yi lompoñ sax xiiboon. du leen jox euh, lu dul en tout cas li ci ëpp. ay légumes bokk na ci leen jox. soxna yi nàmpal. Mhm. dañeen koy digal mag ñi seen at sori. dañeen koy kon au plan nutritionnel ci wér gu yaram tamit. Mhm. moo gën ci doomu aadama yamu ci exportation wax na la ko léegi li ñuy jaay bitim réew ci mbéy mais légume la ak fruit d'accord gerte bi mu ci boole bokkee ak léegi yàggul waaw kon xam nga lim baa ngi bëgg a yaatu soxna xarit ci njëriñu sous secteur horticole te yooyu ma tudd yëpp ay yëngu la yoo nga xam ni ndaw ñi day créer emploi mais tout à fait et puis ban emploi horticulture soxna xarit aar la yow yaa ngi romb toolu kànja yi toolu pomme de terre gis nga ni mu rafetee. war naa leen sa kaw jeex na technicien yi wala leen toolu dugub nag bëgg naa ko am naa ko toolu gerte bëgg naa ko am naa ko rafet na hmm. waaye ana toolu pomme de terre toolu carotte toolu soble. toolu fraise balaa muy doon njëriñ ci économie sax dafa taaru. Hmm. te xale yi léegi il faut pas que ñu jàpp ne dañu leen war a béyloo na maam doon béy moo yore suñu bong bu xottiku caay bu xottiku. booy wàcc ñaq ba kenn du la xàmme nga ne loolu mooy béykat nga ne xale yi dañ ko def. Mhm. ñoo lànk duñu ko def mbay dafa dëppook jamono fi mu nekk nii. la dañ ko très bien maanaam da nga war a ñëw ci tool bi ferme bi summi sa veste dugg say dàll génn ñëw so solaat sa veste dem. Mhm. booy jóge kër gi di dem ñu ne waa xanaa bureau nga jëm nga ne waaw boo ñëwee dugg ci terrain bi yéeg sa tracteur. wala sa motoculteur am sa matériel buy ji tool bi arrosé sa goutte à mu ñor nga récolter def ci saako yi ñu yóbbu maanaam daanaka mbay mu set ci waxin. moom la xale yi tey soxla te wax nañu dëgg ndax innovation yi yegg na foofu maanaam xam-xam yegg na ci yóbbu mbay ba mu nekk liggéey bu set kon waxtu ñuy wax nit ñi boo jàngul école bu baax da ngay béy. Mm-hmm. nga xam ne buñ njëkk

et qui nourrissent leurs hommes kon euh, loolu man loolu lay wax xale yi mhm. chaîne de valeur yi ngi fi mhm. direction horticulture mu ngi fi mais du moom rek mhm. ANCAR mu ngi fi projet et programme yi ñu ngi fi ministère du commerce mu ngi fi APIX mu ngi fi DER mu ngi fi di financer ñiy yëngu ci chaîne de valeur yi kon na xale yi jàpp ne affaire bi ñu gën a riir ko y compris en ville parce que pour daaneel vous, même en ville l'agriculture urbaine et périurbaine yaa ngi koy dégg maanaam mbéyum taax ba ci micro jardinage bii ngay gis mën na doon métier te doo génn kër gi wala doo génn koñ ba mbéy ci sa ëtt la ci ay table hors sol wala mbéy ci sa balcon wala mbéy ci place publique ou mairie donc c'est une façon de dire que solution horticulture tay mu ngi jógee ci ëttu kër gi des milliers d'hectares Donc on a la solution pour l'ensemble des catégories d'acteurs kon nous ngi ñaax ñëpp ginnaaw président de la République le ministre de l'agriculture et de l'équipement professeur Balde def ko ñu ngi ñaax ñëpp ci ñu le ministère de l'agriculture à travers ses nombreux services au niveau central comme au niveau décentralisé moins ci région yi ak ci communes Nous, ñu ngi pour vous leen d'ailleurs le président décidé a yombal mooy dégg ngeen ne ay pôle emploi ak entrepreneuriat ci département mhm. Nous avons lay amee ci communes ay pour que ndaw yi ci biir communes yi ñu les maires aussi lancé un appel, appel président nous na ko ñu jox yi pour nous alors monsieur le directeur nous avons may signaler temps table mu euh, dernière question très rapidement euh, le PSE vert sous secteur de l'horticulture en trois minutes résumé euh, je vous vert président de la République initiative l'initiative, initiative yi mu d'accord reverdir. Sénégal maanaam ñu delloo garab. verdure palaasam jëmbat ay garab. moo tax mu créé agence de la reforestation et de la grande muraille verte nga xam ne fas yéene jëmbataat ay garab fépp ci réew mi ndax xam ne garab mooy delloo si taw. mooy indi taw. loolu am solo muy programme bu mag mais dafa mel ni ci loolu la nit ñi di gën a wax ni beneen fànn bi ñu concerné nañu hmm. ñu koy wax l'agro écologie.

ba tax yëngu bobu sax di doon ci lu te am koy wax ci durabilité kon agroécologie des ñun moom lañ bëgg a développer ci biir PSE vert mooy des moo nga xam ne euh, euh, engrais yi bio wala naturel jiw wi naka noonu wala mu jege ko euh, énergie bi nekk groupe motopompe buy utiliser gasoil muy polluer ñu utiliser solaire ak mboolem xeetu yëngu yi nga xam ne daal day aar ahlam bi ndax yëngu moomu di mbéy gën a mën a gudd fan mu aar wérgu yaramu doomu aadama yi ba ñu yàgg fi di def yëngu boobu. kon loolu daal euh, bokk na ci li nga xam ne euh, euh, ak aussi yokku valeur ajoutée bi ndax produit bio. day gën a cher day gën a cher produit naturel yi day gën a cher di nga am label boo nga xam ne. Mhm. booy jaay marché Kermel wala Caaroy wala Auchan wala feneen produit boo nga xam ci yoon woowu nga ko ñorlé du niro ki nga xamné dafa utiliser engrais chimique ak produit chimique. d'accord accord macha allah directeur ñu ngi lay euh ce mot de la fin rek euh, xam naa ne est ce que mot de la fin ça sax du ma ko def ya ngi préparer élection locale wala. en tant que maire. wa maa préparer élection locale ah. mais pour man moom ambition politique beeg yooyu ah wala. non ambition politique.

moom président Macky Sall looloo waral comme loolu laa gëm. te moom la jëfam ak gis-gisam ak doxalinam ci réew mi dëppook li ma gëm. moo tax maa ngi ci ginnaawam di contribuer lu ma mën pour jëmmal gis-gisam ci biir euh, réew mi. y compris fa ma dëkk moo tax ambition politique. politique bi waaw sama bopp. waaw aw ma ko pour sama bopp. mais am naa ko pour sama askan ndax dama dugg ci politique juste pour dëmbale gox ba ma jógee muy mm, commune bu Latmingué di département bu Kaolack ndax bi ma ciy dugg nag yàlla defal na ma teraanga maa ngi ci sant te politique bi joxuma ko mm. dama ko am soog cee dugg kon dama faa dem pour euh, as tuut li ma xam mm. as tuut li ma man mm-hmm. nit ñu baax ñi ma amanteel mm-hmm. nguur gi ma dugganteel mm-hmm. loolu yëpp doon doole ci ñoom. Mhm. doon njëriñ ca gox ba. macha moo tax deuxième mandat bi. waaw ñu fi yàlla bayee doxantu lay doon rek. Ah. waaw. <laughs> wóor na nga <laughs> jërëjëf euh, monsieur le directeur bettuñu de xamoon nañ ne nii lay demee parce que suñ premier numéro laa euh, annoncé que ni dina ñëw direction te dinañu dalal euh, te boobu woowuma la sax ndax ba je crois que barki démb rek laa la mais li tax ma xam ko mooy que ni saa su bu agriculture sénégalaise taxawee danga ciy dem ba jeex bi ma la waxee loolu tamit même chose la ma tontu ne ma xadinaar man agriculture bi fu ma woo ma wuyu ko wax dëgg yàlla xam nañ ne amoo temps mais malgré tout ça yaa ngi taxaw en tout cas ñun ñu ngi lay ñaanal yàlla di la remercier encore di la wax c'est un honneur vraiment ñu toog ak yow euh, jërëjëf di remercier aussi euh, sama technicien yu baax yi macha allah. Mm-hmm. di leen nuyu bu baax a baax ñoom tamit équipe Fer bi yëpp ak ami internautes yi di leen wax ne beneen yoon incha allah noonu rek lay demee dinañ seeti un entrepreneur bu boobaa ñii nii ñëpp dañuy bàyyi chemise yeeg yooyu dañuy nekk sur le terrain euh, dinañ am entrepreneur ku ci mel dynamique euh, moom tamit mu nekk jigéen bu dynamique. xam nga ko sa xarit la macha allah mu nekk un exemple bu neema. bu neema dinañ fa dem pour seeti ko mu ngi maa ngi fi mu nekk ànd ak sama équipe bi. incha euh, macha allah mu ngi def liggéey bu rafet euh, donc je vous donne rendez-vous très bientôt merci.